bismillah dafa daaneele bayit yi ñaan yàlla mu def araf yi di bayit yi muy luy indi mucc ak jàmm ak njekk te képp koo xam ne xam na maxnaay bayit yi te jàpp ni mu ko waxee jéem koo jëfe yàlla may la lépp looy mébét di ko yóotu def la itam ngay mbégum ña baax ba yàlla wóolu leen ña baax nag ba yàlla wóolu leen doon ku ñuy bége lu rëy rëy la moom la ñaanal nag képp ku xam lim rëdd fii ci araf te jéem koo jëfe boole ci ne nag yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm yonante bi nga xam ne daa waxoon ne man maay dëkkub xam-xam yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm dolli ko mbokkam yaag saxaabaam ya te defal ko lii mu rëdd fii lépp di ngërëm ci mbaaxam a ngëni la moom yàlla mën na ko kon ñaan na mu defal ko ko nusulun lii ak nganele la bismillah nusulun lii ak ngana lela li dawul itqaani ñeel waroom xere ñaga nee na lii tey lu mu defal ñi bëgg buñ dee julli sàmmoonte julli ga ba mu mel na war a mel da leen a bindal lii defal leen ko muy ak nganale ñu war koo xam bismillah ña nga xam ne buñ dee julli bëgg a jéem a sàmmoonte julli ga kem seen kàttan ñoom la bindal lii defal leen ko mu dik nganale tonrafu def na xam li salaati ñeel julli arbahu shuhabin ñeenti bangaas fa kullu man képp koo xam ne at xanaxaa xereñe na leen ku fi kon fegaleef ko at taxaba coono julli am na ñeenti bangaas maanaam ñeenti mbir yoo xam ne yu mat a sàmm bu baax la ku leen sàmm bu baax a baax yàlla fegal la coonoy àdduna ak alaxira fa axdiran na na nga teewal alxalba xol ba fil mihraabi ca mihraab ba mihraab mooy fa nga xam ne kay jiite fa lay taxaw moo xam ca jàkka jala moo xam ca jumaa jala li wa ji ximan ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne yajoodu dana tabe biqtiraabin ci ak jegeñ ko wal yashhad tana teew alxaqlu xel ma la dal wahaabi fa mayawaa kon ba bil fikri ca xalaat ga fil iyaa bi ca dellu ga wa dahaabi ak dem ga wal yaxsha te na ragal alqalbu xol ba bi lar tiyaabin jurul benn sikki sàkka fiiha ca julli ga wa fi dahaabi ak ca dem ga wal iyaa bi ak dellu ga wal taxda te na toroxlu maanaam na mokk al arkaanu ponk ya te mooy cër ya birtiqaabin ci ak fuglu li maalikil arwaax yi ñeel aji moom róoya war riqaabi ak baati jaam ya ar raqabatu bi fi ak jaam war riqaabi jooju mooy jam xoom yéenti mbir yi nga xam ne képp kuy julli war a sàmmoonteeg ñoom yaar yi da aju ci xol bi xol bi ci boppam danga koy teewal ci julli gi nga xam ne diirub yaa ngi julli xol bi du génn julli gi ba noppi nag xol bi boole ci teewlu màggaayu yàlla te ragal ko nga xam ne xol bi day boole teewlu ak màggal borom bi xel mi nag moom itam amuk teewlu ci julli gi nga xam ne xel mi du génn maxnaay baat yi muy jàng ak jëmi julli gi ba nga xam ne du juum xel mi bañ a génn julli gi benn yoon muy ñett la ko ñeenteel nag mooy cër yi ci boppam mokk te yaru ndax ku taxaw fi kanam yàlla war a yëg ne taxaw nga fi kanam ku màgg màgg war a ànd ak yaru lool lool kon xol bi teew ci julli gi muy benn xol bi saxoo yëg màggaayu yàlla muy ñaar xel mi itam teew ca julli ga ndax fekkee xol bi na mu teewloo julli ga ak na mu teewloo màggaayu yàlla tax na xel ma gëlëm loolu day mel ni kon xaw naa amuk manque yi dañoo bëgg xel mi amuk teewlu moom itam ci baat yi ñuy jàng ak lépp lu aju ci julli ga la ko ñeenteel nag mooy cër yi ci woppam amuk mokk amuk yarute bismillah wa haytuma ahdarta foofi teewale xalbaka sa xol rufiha kon yëkkateef xan ka walis yow alxijaabu kiiraay la wa bi daaka te ci loolee tantabixu ngay jariñoo tumma shuhudul xaqli topp teewu xel ma yar faxu dana yëkkati alxitaaba yaraange wa bi xushuuxil xalbi te ci ragaluk xol ba tafhamu ngay dégge alkitaaba téere ba xudooxu arkaanika toroxluk say ponk maanaam mokkuk say cër yaruk say cër yajulu bu dana ñoddi ak sawaaba yool ba ileek jëm ci yow yaa muriidu yow taalibe bi ma xayri sawaabin ànd ak ngën ji jub day wax nag yeenti yee kenn ku ci ne boo sàmmunteeg moom la mu lay jural mu ne xol bi moom boo ko dee teewal ci julli gi ba lu yàgg-yàgg xol bi du génn julli gi yàlla day dindi baaraas ba nga xam ne moo doxoon sa digganteeg moom nga daldi jariñu soo dee saxoo yëg màggaay yàlla ci sa xol di ko ragal ka teewul ak màggam ci biir julli gi yàlla may la nga gën a dégg alquran bismillah nga seetlu foofu ne ak teewlu ci xol ak xel mën naa am ba noppi te ak màggal du ci am ndax boo doon jàng fii loo xam ne ba nga koo xam bu baax a baax mel na ñu def ay jongante ci école yi li ñuy wax examen booy jàng lépp lu ci aju da nga ci ànd ak teewlu ci sa xol ak sa xel te taxul nag nga am genn màggal goo màggal loolee ngay jàng tolloon nag daal xam nga ne xam ko bu baax moo lay tax a jàll rek nga jëmale ca lépp sa xol ak sam xel di ko teewlu ca njàng ma ndax rek bëgg a jàll waaye amul nag ak ragal mel ni ak màggal goy màggal la ngay jàng mbaa ka taalif téere yooyee ngay jàng ka yër bismillah mu ne nag boo dee def boo dee julli di teewlu ci sam xel xam ne xel mi ngi ci seet maanaay baat yi ngay jàng ak jëmmi julli gi na mu tegaloo bañ caa joom loolu day tax yàlla dindil la yaraange tey ëllëg sa digganteeg moom soo dee sàmmonteeg say cër di mokk di yaru di toroxlu fi kanam yàlla yàlla gën laa dolli ak jub gën laa dollil tuyaaba kon yent yi tudd na leen wax itam boo sàmmonteeg ñoom lala ci yàllay defal mu wax nag bu fekkee sàmmontewu la ak ñoom yow mi julli lu la loolay jural fa man sàllaa koo xam ne julli na bilaa xudóori xalbin ci ludul teewu xol fa innahu naka moom laahin aji fola la dal mu sàllaa fa jullikaay ba wa man sàllaa ku julli bilaa shuhóodi xaqlin ci ludul teewu xel fa innahu naka moom saahin aji juum la mbaa aji jamuuj la falaa tamal lan bul yoqat wa man salla ku julli bilaa xushuuxi xalbin ci ludul ragalu xol fa huwa moom muxti un aji teggi la yoon wa wala aji mooy la yoonu dëgg wa wa ma ajal la te màggalut wa man badat koo xam ne feeñ na salaatuhoo julleem nga bilaa xudooxi arkaanin ci ludul toroxluk ay ponk faqad jafaakoon bëcc ngéele na mooy ñaawal nay teggiin wa ma hadat te jubaluñu ñoom cër ya wala jubuñu wa kullu man képp koo xam ne nag salla jullee na bitil kal arbax yi ci yooyee yent fa innahu naka moom waafin aji matal la la dal muttabaxi fa kañi topp wala la dal muttabaxi fa aji topp ja dafa wax ni nag soo dee jullitee sab xol nekkul ca bismillah mu ne nag bu sa jëmm taxawee rek di julli waaye xol ba moom teewul ca julli ga kon yow da ngay fo rek waaye julli woo boo dee julli it sab xol moom ma nga cay teew waaye nag yëgoo màggaayu yàlla mi nga xam ne moom nga taxaw fi kanamam kon day mooy nga lool teggi nga lool dëgg-dëgg yoon waa ndax ku toll ni yàlla ku taxaw fi kanamam war a teewlu ak màggaayam kon nag boo teewluwut ak màggaayam rek teggi nga dëgg-dëggi yoon waa mu ne it kuy jullite am xelam ci boppam bismillah kuy julli nag te teewalul xelam ca julli ga xelam a nga nekk ca leneen bismillah kooku day bu juumul ci zahirit kon juum na ci baatin njuumte lu réeréy lu méttee métti ndax ku taxaw fi kanam yàlla di julli moom sam xel war naa teewlu julli ga ak lépp lu ca bokk koo xam day julli nag te ay cëram yaruwut kooku day ñaawal na teggin lool ndax ku toll ni yàlla ku taxaw fi kanamam say cër war a yaru lool lool kon nag ku taxaw di julli te ay cëram yaruwut ñàkke ne teggin yàlla boroomam te sori na lool jubak jubal ku fexe nag ba matala yent yii kem kàttanam nga xam ne ba muy julli ab xolam ma nga doon teew ca julli ga génn ko xol ba it ma nga cay boole màggal yàlla moom taxaw fi kanamam am xelam it ma ngay teew ca julli ga ni ki seetantal maanaa yaag lépp lu aju ca julli ga cër yi itam yaru amee teggin yent yi ku ko boole kon matale na te des na ko fay àqi yent yi ku ko boole matale nga lañu la santoon te da nga gis pay ga sa xol sedd bismillah wa xaytuma qaama foofi xam ne jóg na mukallafun mukallaf ila salaati jëm ci julli ga fal yatlub na sàkku al iqaama taxawal ga julli bi haadihi al kayfiyati ci wile melo al madkurati wa di ñu tudd da cee teg nag wax wax day nuru sax fëx ya moom soo ko deful fëx ya itam kon nga def wax ya moom melo woowu al mashkuratu mooy melo wa ñu sant la daa rabbil wara fa buurub mbindeef ya mu kàllaf mu jóg ne daay julli daal na jéem a taxawale julli ga ci ni nga xam ne moom lañ ko waxee ndax nii la yàlla gërëm te mooy tax mu sant ab jaamam bismillah waxoon na feneen ne idil muridu laa yuridu abada gayra rida arrahmani haythu qasada ab taalibe foo ko fekk ngërëmul yàlla dong lay bëgg du bëgg leneen du dëgmal lu may ngërëmul yàlla dara du ko ñor lu may ngërëmul yàlla ak fu mën di dëgmal ak fu mën di jublu bismillahi barakatul xadiim man talaba ku sàkku alwusoola àgg ilallaahi jëm ci yàlla bi xayri rasulillahi ci lu dul yonente yàlla bi fala yasilu du àgg ilallaahi jëm ci yàlla nga xool nag nim bindee baadi ci topp dafa bind wala yumnau hum anil wusooli illa bi tadyihil wusooli dafa mel ni mën na noo jàng bismillah saye boo rekk nu jàng wala yumnau mel ne wala yumnau al muridu anil wusooli illa bi tadyihil usooli dafa bind illa bi tadyihil wusooli bind waaw ngay jàng nag bi tadyihil bismillah saye boo jàng illa bi tadyihil usuli def fa am sa kon nga ne wala yumnahu deefu ko tere moom taalibe ba xanil wusooli walis àgg ga illa bi tadyihil usuli dara ci sànk cosaan ya bismillah sëñ bi nee na woon ku bëgg àgg ci yàlla na xam ne yonente bi yàlla bi kat moo di buntu bi yàlla bu fi nekkul it sunnaam ak ñi nga xam ne ñoo aw ci tànkam te di ca wommate ñoo ñaa di buntu bi yàlla ku bëgg a dem ci yàlla te awoo foofu nag doo àgg mu ne it koo gis àggut ci moom la daa defut lay taxa àgg ku awut ca yoon wa nag doo àgg faaw rek nga aw ca yoon wa def la nga war a def door a àgg ku àggul rek na yedd boppam xam ne ci moom la bismillah la yàlla tere it ku ko def yàlla da yebal mbugal ga nga xam ne mooy yàlla ca loolee mu def ne mbugal ga dama toog ca bunt sawara nekk fa ki nga xam ne moo jëf lii ñu tere dana ñëw fekk la fa nga xam ne kuy def ndigal daal del séentu dem àjjana ñu fay la fa tuyaabay jëfe nga ndigal kuy def la yàlla tere itam ne séentu bu ko yàlla jéggalut ñu yebal ko mu dem këru safaan bu muy sawara fekk fa loolee mu defoon mu des nag ku def loo xam ne adduna yi kese kese moo tax mu def ko loola moom nee na mën naa yëkkatiku yëkkatiku bañ di ko naw ak soow waaye day jekki-jekki rek daanu fi suuf tasaaroo di pënd mel ne mësta doon